bu la neex sax nga rey ko waaye lii lañu bëggoon ñoom confrontation lañu bëgg waa Pastef bugguñu xaar ba 2024 Karim Kounka wax na ko Macky trois pommes nee na leen nee na leen ñun makki Sall waxoon naa leen ba ñu waree lijjanti ay mbiram dafay yàgg léegi nag sa ennemi lu mu bëgg doo ko defal Macky Sall Macky Sall sa ennemi lu mu bëgg doo doo ko defal la preuve yaa xam wax na ko dañuy ils ont appelé à la révolte yaa xam ne leen révolté ken ngeen di révolté kan ngeen di révolté boo leen génne ci mbedd bi ah, police génnul kenn génnul kan ngeen révolté la preuve loolu la bëggoon Sonko loolu la bëggoon ba mu demee université dafa bëggoon xale yi révolté ak policiers yi waaye xale yi gisuñu police moo tax tojuñu kaar tojuñu Macky Sall loolu la war a xam il faut mu fay lakk bi waaye bu ko fayul bu dëgëree bopp billaahi wallaahi taalaahi sàll Macky Sall bu dëgëree bopp insister lever immunité même lever immunité bi sax risque la lever immunité ba pare jàpp Sonko même lever bi sax waru ko def bu mu sax lever su ma doon moom su ma moom gars yi démissionné nañ ma woo Sonko Sonko continuer di wax député la député la député la damay bàyyi mu sedd damay bàyyi mu sedd ma accepte défaite bi accepter défaite bi nga bàyyi Missirah waaye gis nga billaay wallaay taalaay Macky Sall bu ko deful bu ko deful lenn rek la mën a def pour nekk pour nekk kat bi mooy mu nekk dictateur s'il est prêt à être un dictateur jël génn char de combat nit ñi di xeex moom ba 2024 s'il est prêt à faire ça mais il n'a qu'à te loolu mën na ko def gagné mais bu dee moom loolu loolu loolu la bëgg nekk dictateur na continuer waaw man daal loolu loolu mooy sama analyse waaw depuis depuis le début maa ngi doon wax Macky Sall na bàyyi mu sedd take the last, take the L take the L jëlal défaite bi yow ay victoire rek nga am ba nga fi nekkee ba léegi ay victoire rek ngay rangale bu défaite ñëwee da ngay nangu da nga am défaite nga bàyyi mu sedd te xam ne deux dans deux mois trois mois ñëpp fàtte mais Sonko sax ci boppam ci benn côté il a intérêt ñu fàtte histoire bi ndax bu dee dafa am ay vidéo ñu wane ne ay nga nga nekk nekk su dul nekk nekk su noonu Sonko il a intérêt bu Macky delloo ginnaaw moom it il a mu delloo ginnaaw sinon gars yi dañuy sulli mbóot yi Adji Sarr jox leen ko euh, benn benn passeport diplomatique mu dem Canada wala mu dem fenn foo xam ne amul ay sénégalais histoire bi jeex mille 2024 nga toog xaar 2024 boobu ne def sa forcing yaa xam buñ la ci bàyyi waaw ah, man daal kii neen y' de vidéo